ah jaara mais jaara jaara ndax nga sa bopp de mais jaara yow mariage nan la mun gaawee ni jaara jaara nëbb sa bopp de waaw ah, jaara kañ nga fi doon jooy <laughs> ak kañ lañ la takk non jaara bul dem réew réew réew réew réew réew réew réew <laughs> mais félicitation ah mais yaa may woon ne dañ lay barki Serigne Touba pour man da ngay caaxaan mais jaara kontaan nañ mais bi. xew bi kañ la. kañ dem nga jël si groupe bi réew mi dina mel ni. daa am xaj. kan kay jarul muy dugg mais jaar fële mu gis la quoi en fait mais félicitations lan. barke Serigne Touba madame Diop. jaara barke Serigne Touba Mbacke. jaara réew réew réew jaar da nga bëgg waaye kan da nga bëgg waaye waaw ma fonk ma jaar kañ kañ kañ nga fi amaat wa xam nga yalla buy def lu baax da mel ñu yaq yàq day mel buy defa day mel lu yaq ci sama ci ko daf ma bëgg faal teral na ma sagal na ma sigil na ma ci milieu te dinaa ko sëyal ñaata million jaar nga ni ñaata million lañ la may wala lool kenn ko wax million yi su ma ko waxee damay def sénégalais yi daw mais kenn du daw man xam naa am ay million lañ la may damay ragal gi ñu ma sha Allah man ka marek man wan masabat pasayawsiya de milyoy amul epok kan amun am epok na musil ko bëgg na ma begina na ma tek na ma fo xamni mindeef te bu ma ko musu job ang nga jëkkal bu baax dama musu job am nga jëkkal bu baax parce que la mi dina la seyel parce am nga jabar awa kale. ah ah don ah Syekh Dekat, Syekh Dot, yang tinggal kan duduk, yo. Jangan tuh kada mati. Syekh Dot itu bidal mas ya. Takna yujar, takna yujar, takna yujar, takna yujar. ah dama ne bi daal na. waxuma waxuma félicitation. barke Serigne Touba respecté nañu xale yu jigéen ñi. ñi xale yu jigéen boo fi respecté wul keneen jël ko takk ko. Eh, ça va. kàddu gi dootoo ko defati laaj lu mu doon ay.